de bu bëgg bu ñu bëggee mu dox loolu ci la bokk maintenant bu ñu jëwee ci élection mairie bi am na ñu ko wax léegi ne am na ay candidats bu ñu ñëwee dañu ñëw rek dem seen yoon ñoom tamit ñu dem ñu dem mais man mënumaa dem ngeen dem man fii dafa bokk sama fief te dañu am ay candidats ñu nga xam dañ leen investir man ci laa bokk fii ci gox bi laa dëkk Adja Fatou Ndiaye sax xam naa waxul leen ko mais ci la bokk ah Rabi ci la bokk euh, Khady Pouy tamit ci la bokk Sala Dior Dieng ci koñ bi la rek ci la bokk euh, Modou Fall ci la bokk Alioune Tall Keneme ci la bokk donc fii moom mënuñoo koo ñàkk bañ a gañe lenn de leer na ma lenn moom leer na ma te fii laa koy waxe incha allah Idrissa Seck moom dañ koy dóor fii ndax defu fi dara je dis bien au centre de Balabé Idrissa Seck sera battu à plate couture ça j'en suis certain c'est clair et keneme waa keneen ak keneen waa keneen ak keneen donc voilà donc ak keneen ak keneen dañ koy dóor ngeen jël ndam mi daal di koy teg suñu loxo bu boobaa bu boobaa li may woote man parce que nee naa leen man dëkkuma Cité Pilot rek ne Cité Pilot lay politiquer ndax ku bëri mbokk ah bëri am di jàmm foog ngay fréquenter fu nekk man zone est bi fu ne laay dem démb ñu ngi woon Aiglon démb ñu ngi woon Aiglon aussi ñu defoon ndaje bu mel nii bërki démb fan lañ nekkoon murit ga mu mel ne leneen mu ngi sax ci internet bi donc pour dire que man tooguma ba nga xam ne élection dafa jot ma ne population yi kaay leen ngeen voteel ñu te président Macky Sall lim ñu sant mooy que nous que nous soyons proches pour que ñu mën leen di assister di xam seeni soxla ça loolu la ñu sant mais il ne faut pas que l'on soit comme des politiciens saisonniers parce que saisonnier mooy toog fii am taw rek mu daal di dem foofu loolu baaxul wala nga nekk un politicien vacancier parce que yaa ngi Dakar ba heure bu la neex rek nga ne xaar ma dem vacances foo waa Thiès loolu waa Thiès ñoo ko war a bañ des politiciens yi nga xam ne bala nga leen di gis da am problème loolu il faut qu'on l'évite et puis il faut que bu ñuy tànn aussi ñu tànn ay politiciens nga xam ne xarañ nañu pour prendre en charge les préoccupations des Thiessois ils en ont et les compétences et les valeurs ça il faudrait que pas